dikkee ñoo jaaxle man damaa jaaxle tiit barke Mouhamed démb te damaa woo sama gémmiñ dara dugg ci ndax añ kër lu yaa sax locataire sax boo ca nekkee ba lañ koy jooj ndax may nañ la weer wala ñaari weer du bon bon bon waaye nga am sa kër yor sa njaboot xale yiy jàng nga toog ba démb dikk ma tëdd rek boobu tisbaar passé na ñu ne salaamaaleykum sama sët bi daal may woo ne maam kaay wuyu ma ñëw génn mu ne ma mu ne ma xam nga ma ma ne ko ah xam na mu ne ma man maay préfet damaa bëgg na nga génne say bagage su gannaaw suba lañ lay toj. ñun nag ñoo ngi nii toog rek ci ba jaaxle ndax ñun fi biñ fi dëkkee mën naa ne am nañ fi fanweeri at waaye yàgg na noo wax ne da ngeen di toxu waaye xamew lu ko woon nii taal bi seex mi démb rek la ñëw ne ko ba àllarba àllarba soo génnewul sa bagage dañ lay toj. man na gannaaw suba man ma tiis sax ba jotuma koo tontu man na gannaaw suba waa léegi nag gannaaw suba yow yaa ngi yow su njaboot xale yaa ngi jàng yow benn néeg doy la ñaar néeg doy ñetti néeg ñeenti néeg juróomi néeg maa ngi ko yor sama njaboot nekk ci kër gi tey bu ma nee gannaaw suba day génn samay bagage nu may def sama bagage yaa ngi ni maa ngi ci biti su ma toog su ma subaa moo dikkee mu dikkee fekk sama sama bagage yëpp ñu di ko tax a neexul adduna neexul dara ne neexul waaye ne kon da nga seet lay dëkk locataire sa boo ko yoree il faut nga may ko weer wala ñaar bi ñoom ñoo koy wax estament na nga sa kër génnewul sa bagage dañ lay toj te suñu sañoon suñu doom yaa ngi ci fii di jàng suñu sët yaa ngi fi di jàng ñu may ñu sax différence boog weer boog sax wala ñaari weer ñu mën a préparer waaye xam nga ne koo xam ne yow amoon wutoo néeg sax boo def sa bagage ñu xëy xëy rek ne suba suba suba suba xam nga lii lu metti la parce li si gën a yéeme mooy pay gi baaxul muy première chose mais nag buur kenn mënut a xëccoo ak moom parce que bu ko neexoon xëy na parce que ñun ay jullit lañu dañoo gëm yàlla gëm dogalu suñu borom parce que nit ki lu mu am njàmbaaram mayu ko ko lu mu ñàkk it yaa fu fusam xañu ko ko xëy na yàlla mooy seet nu ko neex mu cërli ko parce que am nañu fi nekk te amuñu kër kenn jàppale ma dara man daal dikk nag mu ne ma rek kenn jàppale ma dara fii ne ñu ma wax fii ne léegi maa ngi apis ga nga xam ne fa laa jëm ñu ngi ma laaj ñaar fukki junni ak juróom ne na ñaari weer laay jox clémence muy juróom fukki junni fu ma koy jëlee ak liñ ma fay téer laa fi quoi yàgg naa fi def naa fi un an et bon en fait tey ñun dañu dañu xëy dégg nouvelle bi quoi ñu ni dañu jox délai 10 jours fii ci kër gi quoi borom kër gi lañ fay ni dañ ko jox délai 10 jours ñun nag ñu xaw a jaaxle te tey ñun ñu ngi doon xaar ñun sax ñun lañu war a njëkk a fay ñun ñu dem wuti feneen ndax ñun dañ ñëw fii pour daan daan suñ doole quoi. Sénégal dafa doy waar dafa mel ni bëgguñu jeunes yu dem parce que boo xoolee ñun fii fi leen doon daj lu ñuy yóbbul suñu njaboot mais xëy ñun bon jour rek taxaw nii da jox nañ leen dalee 10 jours yow woowuñu la fayuñu la defuñu la dara bagage yi ñun mënuñu ko ëmb du dem comprendre nga parce que fay nañ borom kër yi mais fayuñu borom place yi waxuñu ñu dara affaire jaay doole moo fi am. Música